bismillah rahmaani rahim ñu ngi ñëwaat ak yéen ba ci deuxième phase bi nag xool li nga xam ne moom lañu defoon ci four bi léegi bu defee nii dañuy jël suñu soble bi rek laalale ko ci tuuti boor bi pour mu xaw a xaw a laq-laqaay soble bii nga xam ne daggoon nañ ko te tuuti rek lañ ci soxla woon voilà def ko nii mu xaw a kii am na sax ñu koy lekk noonu kuroda nga xam ne dañ koy bëgg noonu fraîche mais man dama koy xaw a laal tuuti ci four bi rek nii mu demaale kii bi boo xoolee sax bu fekkee ne dëwlin bi tàngal na rek baax na daanaka mën nga fay sax gaz bi ndax am bi du wow voilà mii nii hamburger sax boo ko dugalee ci four bi rek wàññi sa gaz ndànk da ngay am lu bari mhm. jaar yoon de mel ni ki danga ko lakk ci kii bi te gisoo ko lii ay trent minutes rek ngay def mu daal di ñor xom fekk dëbb nga yàpp bi ba mu nooy ah, def ci sa mburu te mburu mburu bi tam dafa baax ci biir kii bàyyi ko ñu tuuti mu continuer di tàng ndax soblu bi xaw a bi di tàng macha allah ñu xool suñu salaat gi naka lañ koy mën a defee ci biir kii bi man nag nii laa koy defee ku mu neex tam mën nga teg noonu ci plat rek voilà boo kiwee nga njëkkee yaa xam ku bëgg kaani bu soive mu jël kaani euh, kii bi euh, kecce bu soive mi ma moom laa njëkk nii ci fond bi mhm. voilà def bii tamit noonu voilà léegi nga xool mayonnaise bi tam dam koy laal tam ci fond bi balaa ngay kiiwaat balaa ngay gën a dem jëlaat mayonnaise bi def nii Mm-hmm. léegi dalay xa dalay leer na am na salsa bu bu jaar yoon mayonnaise beeg kii bi jaxasoo mm-hmm. bu nees bi ak ketchup bi jaxasoo yi rek am na benn saboor bu neex bu ma commencé am léegi nag ci biir loolu nga daal di commencé xam nga lii sama salaat bi ma defaroon sànqale la mais dama ci def tuuti euh, bouillon pour mu xaw a saf daal. bu la neex mën nga ci def tuuti xorom bu fekkee ragaloo kii bi nga def nii sa salade mhm. jël say tamaate rangale ko nii ndànk mu mhm. ngi nii rek salade ak kese lay doon ak pomme de terre ak kii euh, fromage bu la neexee tam mën nga def sa pomme de terre waaw mais man tey bii bu oyof bi kese laa jël def ko nii rek simplal ko voilà mën nga jël sa benn fromage teg nii ci kawam léegi fromage bi yàpp bi mooy ñëw ci kawam mën nga laalaat tuuti salsa ketchup bale nga defaat tuuti mayonnaise mu xaw a laal tuuti mu xaw am benn crème nii rek nii ci kaw voilà léegi nga teg nii jëlaat bi ci des defaat même chose même bu fekkee ne sax bii nii da lay kii mën koo def ni han ah, jël tamaateem tek ni ci bor bi bu fekkente ne que si xalé bi bëggul par euh, par exemple yow nga mélanger ko nga defal ko ma sha allah mhm. daal di jël salade bi nga xamné nak mom lañu ki boba salade dang koy dag mu gudd ni nga tek ko ni ci wét gi ndank waaw mom bu bëggé mën na koy euh, jël noonu. Mhm. sa benn fromage rek tek ci kaw machallah mbok yi di len nuyu bu baax di len jajeufal nak wax deug yàlla machallah machallah machallah di ñaan yàlla rek yàlla baye ñu fi ñu len di gëna bégal rek chaque jour ñu andi len dara lu bees bu soobé yàlla ci kàttan na suñu borom bi léegi xam nga comme four bi fayon nañ ko dañu bàyyi woon nii rek pour soble bi gëna lax touti mu ngi nii rek macha allah léegi mën nañ ko génne boo ko génnee def ko nii mangoog ma nga jël léegi bii nga xam ne nag moom ci plat bi nga koy teg dangay ñëw direct rek jël sa plat teg ko ci noonu mhm. voilà mën nga jël soble yi teg ci wetam xam nga soble fi mu ne nii daana ko ñorul nga daal daj jël ndànk rek teg ci kaw tuuti rek mu xaw a laal four bi rek nga jël ko def ko ni ndànk macha allah gisa plate bi ni mu neex ni mu ni mu naay ni ci xale léegi mën nga jël sa salsa teg ni ci boor bi tuuti walla jël sama mayonnaise teg ci boor bi mbokk yi di leen nuyu rek bu baax a baax di xam ne rek yéen a ngi may eh, jàppale macha allah waaye ñu yokk rek abonnement yi surtout ak like yi ñii rek dañ koy defee mhm. léegi bii nga xam ne nag moom dañ koy dugal ci biir mburu bi xam nga comme bu fekkee bu kii bi la moom mooy bi nga xam ne dafa nekk paan bu bu tàppand bu bu rond bi daal. boobu doo ko dagg mais bii nii dama koy def nii ci digg bi boo ko defee nii ci digg bi def ko nii soog koo jël comme ni ma defoon nii rek teg sama plat léegi defoon naa ci ingrédients yi ci war a dem yépp bii danga koy jël ndànk rek def ko nii jëlaat bi def nii mu normal nga jël tuuti sa ay sobleeg yooyu teg ci kawam voilà soble bi moom mi ngi dépendre ci yow rek am na ñu bëgg soble bi am na ñu ko bañ mais boo ko bëggee yow mën nga ko def te tuuti mu bañ a bari rek pour xale yi mi ngi nii waaw mbokk yi di leen nuyu nag bu baax di leen ziyaar lii laa leen indiloon comme ndogu macha allah tabarakallah man <laughs> ko lii laa leen indiloon comme xale yi njogonal wala reer wala kii. Mhm. xamna ni dina len neex sha allah tabarakallah lay ki jëm kaw hmm? ligé bi jëm kaw sha allah kontana bu baakha baakha baax di len ziar bu baakha baax yenn yalla nangu ñaan yépp Mariama ma sha allah ñu ngeen ba xalé yi maa ngi leen nuyu lu bari di len ziar lu ok seen mbokk Ndeye Khady maa leen indiloon am rek saa bu nga xamante ni gisee maa ko defal sama loxo bopp lii nag lu am solo la parce que njaboot moom macha allah boo amee da ngay essayer di leen toggal lu nga xam ne li ngay togg xam nga lu mu doon. voilà bu ñu bëggee nga defal leen nii ci plat ñu toog lekk ndànk di kii bu ñu bëggee nga defal leen ko bocadillo nii waaw moo gën a yomb gën a saano ba pare am benn problème li ngay li ngay jox sa doom xam nga lu mu doon. wasalaamaaleykum wa rahmatullah maag seen maag yéen ci beneen vidéo incha allah yu am solo yi ay njogonal yu sew sewaan rek la mais dañ ñëw ci vidéo yu am yu solo incha allah ñu ngi koy préparé ñu ngi ci yoon bi merci beaucoup mbokk yi jërë ngeen jëf